mi ngi bëre kan Daouda Fall numéro 2 moom Thiatou Aïda bi mu fi mujj ndeysaan Robert la fi daanoon Robert la fi daanoon tey mu ñëwaat fi ndeysaan ñaari xale yaa ngi si géew Daouda Fall 2 ak Thiatou Aïda kii bàyyi ko Joal kii bàyyi ko Géejawaay John Lass wala nga ne Thiatou Aïda mu ngi bëreeg Daouda Fall jë ndeysaan kii di Thiatou Aïda bi mu fi mujj ci victoire la fi jëlee waaye Daouda Fall jë bi mu fi mujj ci victoire la fi jëlee ñaari xale yaa ñëw si géew gi balancement bras saan Thiatou Aida ak Dada Fall 2 spécial booy ma doon la si nga dëkk ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndax soo xoolee Thiatou Aida jàpp bi la bëgg waaye a Fall 2 xeex bee ko arrangé ndax day bëreeg mbëru mbapat Thiatou Aida Dada Fall 2 saan ñu ngi def tek eh caatu ayda jam na nee na Daouda Fall nee baaxul <laughs> saan Daouda Fall 2 caatu ayda Daouda Fall numéro 2 ñaari xale yaa ngi noonu saan tey nekk 100 pour cent simple waaye moom moo ñëwul ak Mbayang moo tax mu wet moom moo ñëwul Mbayang ñëwul ndax soo xoolee Daouda Fall xeex bee ko arrangé waaye kii di Thiatou Aida bëre bi la bëgg moo tax muy def déplacement day bëgg a jàpp day bëgg a jàpp. Uh-huh. Daouda Fall numéro 2 Thiatou Aida. ñu ngi ñu ngi wéy ñoom ñaar. ar bi sifla waat na eh, Thiatou Aida jam na ko ne John Laas Thiatou Daouda daal fayu na Daouda Fall 2 fayu na Thiatou Aida ak Daouda Fall numéro 2 eh, Thiatou Aida jam na ko dox na si tasoon eh, Thiatou Aida fayu na Thiatou Aida remisaat na ko mi gauche bi baax na mais gone Joal gi gos bi baax na de waaye gone Guédiawaye bi ay remise yu baax na yor dëkkub dóor fayoo nekkoon sa wet ka sali nee naa la dëkkub dóor bi fayu ñëwee la toxu damante nañ baaraam eh remise na ko John Lass remise na ko Caata Aja remise na ko remise daal na ko waaye dalul gos droite Caata Aja daal dafa numéro 2 Thiatou Aïda ak Dara Fall numéro 2 na ko moom Thiatou Aïda mais Thiatou Aïda mu yónni nii baax na de waaye Dara Fall remise gauche droite de mais mais eh gauche droite gauche droite man mbaru mbapat bi jaaxal na ma de xamoon na ma na li mais Thiatou Aïda non dañ ne mbëru mbapat la tey mu ñëw xeex xeex bu sax nii kooni John Lass saan Caatu Ayda Daouda Fall numéro 2 ñu ngi damante baaraam ñoom ñaar ñu ngi damante baaraam Caatu Ayda Daouda Fall numéro 2 waaw ndax ndax xam nga lu ko waral dañoo bëre ba bàyyi waaw dañoo xam nañ li si géew xam nañ li si géew jàppante nañ eh, Thiatou Aida jàpp na Thiatou Aida jàpp na Thiatou Aida jàpp na Daouda Fall de dara daa dëbb na taxaw plaqué na ko ay waa John Lass na ko ay waa John Lass na ko doomu soobu sowaar bi daan na ko doomu mboojen bi daan na ko